Hmm. Pape loo ci sànni ci ay kàddu. bon euh, brièvement rek euh, euh, c'est salutaire hein mais c'est regrettable après des morts et des blessés. que voilà médecin après la mort ba loolu amul sens quoi.

dafa dafa dafa diis torop ñu dem ba si biir léegi nag gouvernement Kenya yokk tax yi ñu dem ba si biir léegi di leen wax ne boo li ngeen def parce que y a des y a des y a des y a des morts donc euh, voilà il faut tamit africains yi soit gouvernement africain soit responsable que ñu defal seen politique comme ñoom ni ñu ko bëggee mais pas que ñu leen di imposer li ngeen def li ngeen def lu la mooy nday ñooñu nekk à l'étranger leen wax ni seen dette bi dafa dafa bari donc foog ngeen yokk seen yi ñoom gisuñu lenn dul di tibb ci yeneen instance loo xamante ne par exemple Euh, nit yi foofu la ñu mën a basé wu Kenya yaa ka dee ay baykat kasa ñoo fa nekk yow léegi soo waxee ne ñu ñu ñu basé wu ci lu nga xamante ne moom mooy ay essence yu ma xamul te ñoom essence bi dafa cher dëkk bu pauvre la mhm. ah bien que ça boo économie bi amélioré na ces dernières années mais bon mais ils s'en sortent pas nga wax leen da ngeen di yokk xaalis da ngeen di fay plus

di du def ay. Euh, def ay euh, yëf voilà di def ay ficelle quoi. Mm-hmm.